bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin rabbi israh sadri wa yassir li amri wa halul xuqdatan lisani yafqahu qawli barke borom tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloo noonu di ñu seetaan noo ngi am mbégte ci jataay bopp ñi ngi ko amale fii ci kër Serigne Abdul Karim borom makaarimul axlaax moom Cheikh Mahmadul Fadal moom Serigne Touba Xaadim Rasoul tey jii ci ajuma ji ngir ànd ak yéen ci wàccaayu bis bu tedd bi ne ci suñ kanam mu di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab mu di guddi gi nga xam ne ci la Cheikh Mahmadul Fadal feeñe woon jamono ca Daaru Salaam ngir ñu ànd ak bokk yi nag ci waxtaan woowu ñoo ngi nuyu bu baax ki fi nekkal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ko wér waaye siyaare Serigne Abo Baraka xalifa Cheikh Mouhamadul Fadel ak mboolem njabootu Serigne Fallou gépp di fab ziar boobu nag di ko teg ci loxol borom ëtt bii di Serigne Abdul Karim di ko ñaanal yàlla taxawaayam sun borom yàggal ko lool te dolli ak wéram te defal ko mbooleem ñu topp ci ginnaawam te defal ko mbooleem njabootu Serigne Touba gi ak taalibe Serigne Touba yi. ñu feggoo ci jataay bii nag ak sunu wayjur di kenn koo xam ne bu ngeen jàkkaarloo ak moom rek da ngeen daal di xam lu bari ci fi nga xam ne fila jataay bi jëm mu di Baye Gora Seye Baye Gora Seye bokk ci ndaw ñi nga xam ne e, yàlla baaxee na leen ba ñu feeñee jamono rek seeni wayjur jur leen ci yoonu murit waaye jur leen ci ëttub Cheikh dul Fadal yëkkati leen teg leen ci loxol Serigne Falilou mu jàngal leen yaral leen boppam lu bari ci liggéeyub sëriñ bi ci ak mu jëm lépp Baye Gora Seye mi bokk ca ña taxaw woon loole doonoon jëwriñ ci daara yi sëriñ Falilou e, ñu feggoo ci sunu ndijoor ak sëriñ Gana Messere Maxtaar moom it ndaw loo xam ne e, ba ko yàlla dimbalee ci wàllu njàng lam doon jàng lépp mooy sëriñ bi ak waa këram waaye ñu feggoo ci sunu càmmooñ ak sëriñ fallu Jatara sëriñ Fallou Diatra it bokk ci ndaw yi nga xam ne ndaw yi xam-xam lañ waaye xam-xam ban mooy xam-xam boo xam ne ci njàngaleem sëriñ Touba Xaadimu Rasuul la tënku mu génne ci daara yi sëriñ Saaliwu moom it nekkoon fa jëwriñ ca daara yi njàppandal ngir njëkkante ak waxtu wi nag bokk yi dañuy bàyyee bay góora e, mu nuyoo ak bokk yi daal di ñuy andil nag ci jëmm jooju nga xam ne moom lañ fas yéene waajal bisam ñu xam kan mooy sëriñ Falilou ci wàllu xam-xamam ci boppam waaye wallu baatinam wàllu pas-pasam ci sëñ tubaa ak li mu liggéeyal sëñ ak liggéeyub sëñ tubaa lim ko jaraloon ak ak niteem xam àdduna ak li mu jariñ ci àdduna kon dañuy bàyyee bay Gora su ko defee mu nuyoo ak bokk yi tàmbali ñu kon Baye Gora bisimilah. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين ذلك لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك لا يفعل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñun bokki julli yëpp ak bokki taalibe yëpp noo ngi fii kan kër Serigne Abdou Karim Mbakke moom Serigne Fall comme nii ko Serigne bi waxee léegi noonu la deme bala noo tàmbali waxtaan wi nag dañuy ñaanal sëñ Muntaxa Mbakke mii Serigne Touba ñaanal Cheikh Abou Mbakke. mi fi nekkal sëriñ Falilu ñaanal sëriñ Abdou Fatah Mbacke mi nga xam ne moo yor kàddu waa kër sëriñ Falilu ñaanal nag sëriñ bii nga xam ne moonu fii ngir bëgg lu baax te di ko xencu na ko war a xencoo kon lii njëlbeenu waxtaan wi moo di sëñ Fallou mooy li ma tàmbali woon léegi ma dellu ci sëñ Moustapha ñaanal fan yee dama faa dem siyaare bi yàlla dogal na kii laa àndal bi ma demee ba jox ko la as jaxate moom nuyoo la ak moom waaye mu wax ma kàddu diis ndax li may wax kii la mhm. dafa daal di wax aas na ko sama xarit ngi sama jëwriñ a ngi est-ce que sama xarit a ngi a ngi ma xamee mën na ko nag sëñ bi li ma fi indi tey mooy ñaanal si la ñaan gi nag ñetti baat la mooy yàlla ak yonent bi nit ñu nangoo liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na ni Serigne Touba nangoo sa liggéey amiin laa ko ñaanal daal di tàggatoo moom daal di ñëw Serigne bii teg ci ay woy yoo xam ne doy na war jox ko Serigne bi sëriñ bi liir ko bég ca lool ba far téye këyit kon fii nu toog tey. muy ndindi kër sëriñ Fallu moom la sëriñ Fallu njëkk am ci àdduna ci dëkk 1900 1913 bi mu koy gor fekk na am na ay mag yoo xam ne dañoo jébbali woon ci sëñ Tuubaa lu sëriñ bi tàmbali moom tàmbali na ndindi ba nàmm fi nawet fi nawet sëñ bi toog leen la jox ndigal booba mi ngi ànd ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Xari Njaay sëriñ Ibrahima Xari Njaay mooy maami sëñ Abdu Samad moo jur way jur bu jigéen mi ngi ànd ak ku ñuy wax Abdou Xayta Njaay sëriñ Abdou Xayta Njaay moo waral li ñu am mi ngi ñu wax seen jur mag sëy moo jur sama baay Demba Korka sëy ñoom ñett ñooñu kenn ku ci ne seen tubaab bi déglu kenn ku ci ne seen tubaab ngëpp ci loxoom wala seen tool bi teg ko ci loxoom moo ko ñett ñi ma la jox bu ëllëgee ni ma la ko joxe na nga mën a delloo ñu bi mu tàmbalee léegi gor dëkk bi ànd ak mag ñooñu ak seenu njaboot ñuy liggéey di yóbbu njëriñ liggéey boobu mi ngi tàmbalee ci juróom benn fukki góor ak ñeent ñi nekk ci daara ji ñii di borom kër ñii di liggéey di indi sëriñ bi nekk fi di liggéey fi ñu liggéeyee bàggale sëriñ bi bab lañ liggéey ak liggéeyu boppam li muy bindal sëriñ Tuubaa boole ko teg ko ci loxol góor gu ñuy wax Massar Sarr maam góor a sëy moo koy jox ay gëléem mu sëb ko ca yit ko Serigne Touba Njaarim diiru treize ba vingt-sept sëñ Touba ñibbi si lu fi sëñ fa lu liggéey rek yóbbu na ko Njaarim teg ko ci loxol sëñ Touba mu delloosi ko ban sëñ Touba dikkee mu yeesal ko ci sëñ Mourou Moussa noonu lay doxe ba jumaay Tuubaa ji ubbi ko sëñ Tuubaa digle ko wax ko jëf ca bi te bi liggéey bi tàmbalee maam sëñ Fallu ci boppam dikk fii ci Ndindi carrière bi feeñ fii ci ndokk bañ waxee na kenn ku ci ne na joxe lam man ci ay nit ci sëriñ sépp ku am ñaari nit ku am benn nit ku am ñetti nit sëñ fa lu ndindi jiinu toog la tànne ñaar fukki ponkal ak juróom ñetti daara fi Tuubaa ànd ak ñoom dem ndako bii am na foto boo xam ne bii ñu bari ci fo nit ñi gis nañ mu ngi toog ca kaw carrière ba kaalawu sëñ Ousmane bu sa toog wetam am na nguur su dend ak moom am na ñu ko defee am na kuñ koy eh, jàppale di wax ne moom la waaye man kama jàpp ne moom la du moom ndax yooye jamono du moom sëñ Fallu tàmbali liggéey boobu fekk na bind na sëñ Tuubaa leetar wax ak moom ci dama laa bëgg a liggéey toog nañ mu wax ko bind na jox ko benn bis sëñ Tuubaa yónnee woolu ku mu ñëw mu ne ko bind nga ma leetar wax ma toog nañ nga wax ma liggéey ngi dikk nag boo xam ne bii nanga nga ca feeñ liggéey ngi dikk boo xam ne bii na nga ca def loo man ak loo mënu liggéey ngi dikk boo xam ne bii ku dikk na la ca fekk ku dem na la ca ba bi yàlla dogalee liggéey bi feeñ sëñ Fallu nekk ci bi mu doonee xalifa 1945 Serigne Abdou Fatah Mbacké moo njëkk a feeñ ci xalifa ak sëñ Fallu ci góor soxna may galas tege ca bokk suñu bi kërim nii benn wayju sëñ Fallu nekk ca noona di liggéey daal góor ñànk gii tàmbali am fa yetti dem yenti at dem aliye gii am fa juróom ñeenti tuxoowaat aliye del si waat ndindi 1959 fekk na léegi jumaa ji lépp lu sëriñ bi bay doon na xalifa ba li jumaa ji nappee le 7 juin 1963 sëñ fa la amu fi mbay ma nag mu gànt lépp lu mu bay rek mel na war a mel lu mu def def ci tàmbali na jumaa ji tubaab bu ñu wax iskit naa ak sénato yor ko ba ni jumaa ji noppee sëriñ na jiital ci payu weer par yaari weer yetti jii fay leen jiital musuñu ko topp moom moo leen di topp ba lépp nag bi nu tuxoo alie dikki ndindi ji cinquante man mii danoo jóge alie dem Touba yelwaani reer booba dandaa dee bu nu yelwaan see bu noppee dañuy dajee ci buntu kër sëñ Fallu ku giif àndandoo di groupe delluwaat aliya biñ fi toogee di négaate sëñ bu saama fi fekk fekk mbooloo mu nit ampul bi ana ñi toog ñu ne nu na mën a ñooñu mën a ku ñëw mën a kooku du góor a sëñ a ko enquête mën a mu ñëw luy ma daal di moom maa ngi ko fekk ci baraagu sëñ Moustapha Guèye mu daal may ampul ko waaji see mën a ko waaw mu ne ma ñeme nga fi ndindee ma ne ko waaw waaw ma yebal ñeme naa mu ne kaay demal ma ndindi soo demee neel sa baay dem ba kork sëy ak madu maane sëy bu subaa ci talaata ji danaa fi ñëw seet si àll ba yeesalaat dëkk ba damay ñibbi muy cinquante neuf boobu yàlla dogal na mbayu aliyam yi jaay nañ gerte ba àggale te sëriñ bi defagul dara ca la tuxoo aliyee delti nit ñi bi mu dikkee bisub altine la xëyee fii bi mag ca guddi ga rek laa dikk fekk maa ngi julli timi eh, takk eh, timi geefaagale toog ci bunt bi bitig ma daw dikk nuyoo sama bàyyi na ma looy wut naka nii mbaa jàmm la mën a kaawoo mu ne ma loxoo ma ne ko sëñ bi ma yónni mu ne ma sëñ ban ma ne ko sëñ ban ñoom ñëpp ñu jóg ne ma loo wax ma ne ko sëñ bi saa bàyyi ma góor loolu kenn du ko def loo wax ma ne ko sëñ foo la mu mu ne ma lu mu wax ma ne ko nee na bu subaa ci talaata ji dana fi ñëw seet si àll bi yeesalaat dëkk bi day ñibbi di séngande ñu ne loolu lu ciy pexe ñu daal di woo góor gu ñuy wax mondaat mu yéene dëkk bi na ñëpp génn ñu taal làmpi weer ya ngeen xamoon yooyu pétrole daal di yor ay ampoule bay pénc mi ci ba mu set wecc ñu radd ko suul ko daal dem ci diggante jàkka ji ak bunt kër bi Ibra Xari Njaay mi ifaatu bërki démb moo fa fanaanee jàng ba bët set set bi ñu xëyee toog tuuti oto bi korne maag góor gu ñox Ibra Xari Njaay fa jiitu sëñ bi ne nee leen mbooloo mi nañ toog xaar ma ma dem te ñëw daal di aw yoonu penku diir bu gàtt mu daal di bu des ba mu dikkee wàcc rotu dafa daldi laaj sëñ Baaba Njaay ñu woo sëñ Baaba Njaay mu yor bant bu mel ni sans bant bii dikk ba jug ko na ko Mbakke sëñ bi ne ko Njaay daal ko ne jege si mu jege si mu ne ko maa sëñ Baaba Njaay si gindi gaal sa doom si baax ja màgg njaay sëñ baaba ne ko si gindi gaal mu ne ko baaw euh, sëñ baaba mu ne ko mbakki mu ne ko yaa baax doom màgg moo baax liggéey bu ma mas santaane su ma ko siinee rek sama xol set waaye ku ko gis tey de dana xam ne seral sama xam moo gën tàng daal di koy jàll dal di toog tuuti fekk na tubaab bi commissaire bii nekk ci Mbakke nit ku ñuul la woon ñu ñu di ko fi war a jëlee di fi indi nit ku ñuul ñu di ko woon ci chef de village bi ñoom ñoo ñee ñoo kaagale si yi lépp ñoom ñoo ñu daal dem sëñ bi ne ma yow booy añ dara delloo di ba ñu añee ma daal di ñu teg ci ay fan mu daldi di woote alieu doo nga yëpp daje mën na na néeg yëpp jóg daara yi borom kër yëpp daal di indi muy cinquante neuf fekk na jumaa ji lépp daana kii lépp lépp taxaw benn soor mag bi moo ci des mu jaay gerte ga jóge fa dellusiwaat ci ndindi ji xëyee fi bésub altine dem fondation soor mag bi bi mu koy fondation yi ci biir jumaa ji la yenn ca koñ bee féetee kër sëñ Thierno fa la yenn ba takkusaan fondation bi mat mu ñaanal nit ñi jëlaat otom del si wàndi bi di altene talaata àllarba alxames mu dajale waat dongo yépp ci kanama su ma saa dongo yi laxasaa yi nag du nangu kenn kenn ku ñoom rek ak moom bi mu dikkee ba toog daal di woo ñëpp ñu toog mu ne damaa bëgg waxtaan ak yéen daal ne liggéey bii ma ne ànd ak yéen di ko liggéeyal Serigne Touba sooroor bii ma tàmbali bëgg ci démb moo ci des moo ci ëpp moo ci su noppee ba ma weexal bu ngeen liggéey lekk lekk mu laa ñu doon daal di tàmbali cinquante neuf soixante soixante un soixante deux jumaa ju mu inigré ko julli ci ñaari téeméeri ak juma ak fukk juróom-benn doog dem lam nu daa wax ci xale yi am na ndaje moom def ne alxames ji ma jëm fu dongob laxasaay nekk na ma fekkal yi maa ngi fii ñu di ma yett loo xam ci nit ñi ñu woosi ma bañ dikkee ba sëñ fa luy wax wàccut oto bi dafa laaj jëwriñ ju ne ana kamala jamala joxoon nga ne ko ñu ngi nii mu ne ana moo defis mu ne ko maa ngi mu ne ana moo defis mu ne maa ngi nii ku mu laaj ne ana gaañ ñu ne ko ñëw bi fekk ne aliya juróom yaari daara fa ne daaray Sam Ñang daaray Mor Cissé daaray Fall Cissé daaray Yusufa Touré daaray Ablaye Ndiaye daaray Maam Mor daaray Cheikh Ndindi Cheikh Ndindi moom nag mooy bàyyi alaj Cheikh Ndindi mi moo doon sama jëwriñ daaray Touba Mirina daam Mbay daam Jaxate Aliou Diop ngañ luum kenn mus ta lu gàtt bi yàlla dogalee sëñ bi dikk woote na xaram mu ne yéen ñii fi toog damaa bëgg a waxtaan ak yéen tey ndax ay nit suñu àndee dañuy waxtaan ma xëy si sëpp sama tànk teg sama tànk ci suuf ngir liggéeyal sëñ Tuubaa ngeen gont kon nan waxtaan daal di ne yéen yi dañuy fii tey dama leen a bëgg wax seen bopp man damaa fekk la sëñ Touba tànn cee la yàlla la yonent bi tànn ci sunu borom ba teg ko fee ma tànn cee la sëñ Touba tànn di ci teg fii mu yéen ñi daje fi tey ëpp leen yéesu leen gimiñ dugg leen su ngeen ëppoon da ngeen di ñëw ci ba sëriñ bi ñëw bu ngeen yéesoon sëriñ bi ñëw ba dem ngeen ñëw bu leen gimiñ duggoon da ngeen di dajeeg moom dara waaye yett yi dara dal leen ci daal di ne ñi dajee fii tey kenn ku ne ci yéen tund wa nga dugg jóge fa ñëw fii tund woowee dëkk ba nga jóge moo gën moo ca dëkk moo gën ca dëkk kër ga yow ma jóge ca kër ga ñëw fii yaa gën ca kër ga kër ga néeg ba nga génne dikk fii yaa gën ca néeg ndax damaa tànn ci li sëñ Tuubaa tànn di ne maa ngi leen di wax nag ana moo doo fis mu ne ko maa nii mu ne ana moo sisi mu ko maa ngi nii mu ne ko ana gaañi mu ne ko ñu ngi fi mu ne ana gaañi mu ne ko ñu ngi fi mu ne nekk ci àll bii na ñoq seen tuba yu gàtt yi te tilim ak seen tilimaay bii ak seen naaju tàng wii ak ngeer meeg ñax meeg ngir sëñ Tuubaa mu ne mu ne ba booba daal di noppi daal di wàcc bi mu duggee ci kër gi ba mu demee bay bëgg a dugg mun a gees na déglu leen waay ñëpp na seram kenn yëngu mu ne na ngeen dégg li ma wax te jàpp ko mu rut di alali baadoo la baadoo du xam mu sa kama di ko yëg ba mu duggee ba toog diir bu gàtt sëñ Moodu bu sa jàng daal di agsi ak sëñ Moodu xabaan biñ dikkee sëñ bi daal di woote waat ci biir yëpp toog mu fab am buuj bu nit gaa yëpp say say say daal di fab am buuj bu samp sëñ Modou Xaban <clears throat> daal di ne ko yow mii ak sëñ Modou mii kenn mënu ñëw fajaajo gaa yi rek mën a fajaajo barki borom gaa yi rek gaa yi rek daal taal làmb sëñ Modou Xaban jug taxaw làmb poosum génne ñetti junni ne ana ne ko maa ngi nii mu ne sama aajo sëñ Modou jug taxaw làmb poosum génne ñetti junni ne ana Mor Cissé mu ne ko maa ngi nii mu ne ko am faj leen sama aju bi mu noppee bay sëñ bi daal di ne ana Mor Cissé mu ne ko maa ngi nii mu ne ko ee eh, waaye ndaw duñ ma ko yóbbul de jox naa la gàtt xar male ak saako gépp ci kër Fall ci bitu Fall sax dem leen ca pénc ma rey ko togg ceeb ak ci guddi gi lu yàgg lu guddi guddi tubaab mi noyu lu ma daal waa ji du mën a xapp bët yéen rek booba ñetti waxtoo nekk ci dëkkër gi ay 46 kenn ci ñun koo xam ne ki da nga naan sa morom kaay yenn du am da ngay fekk saako gerte nga fab sànni jàll di ko def di ko def ba lépp nag sëñ Fallu bu kenn kenn du benn bis xëy nanu ba sibbi ñu di gerte yi fu bën ma sa sibbee nag moo yee daar moom du nekk ku naan tooy nag tooy bu xëyee rek jëlatu bi kañ ana kenn jóg leen kañ benn bis la fi at mel naat bët see bi di wéeg bët see dalt bi moo wër daara yëpp na takk leen dama koo leb ba dama koo leb dem leen liggéeyal sëñ Tuubaa dama koo leb altine ji ba altine ji mu dajee donga yi jëwriñ jox leen gëléem na leen la ma leboon laa fayee dem leen rey ko dem ca daar ya togg ceeba ga waaye bu kenn defati benn at ñu ci gerte yi ba gerte yi sax ba jóg muy wër tool yi ba dikk daal di police ba mu demee ba war a jàdd di xool jàdd gaa yi baare gopp ne oto bi di jàdd sëñ bi ne lii lu mu doon ñu ne ko lii ñuy liggéey sëñ Tuubaa kenn du ko yàq ayut ci yoon sëñ bi ne loolu ngeen ma ñu ne waaw kenn du feebar sëñ bi ne loolu mun a mën a bàyyi li noo ma jàll fu ma wax dina wutu fu ma ñu ne ko demal yow doo at moomee tool boobee daane na gaay yëpp ñaari téeméer bëri na juróom benn nun mosunoo béy lu gàtt sëñ Fallu man mii wax ak yow nga xam ne man maay sama yaay ci bokk sama ndey sëñ Daawuda Mbay ci caamin bi sëñ Fallu yi tukki di dem wër njàmm dafa dem caamin dëkk bu ñuy wax caamin war a dem kër sëñ Daawuda Mbay bi mu fay dem lal bu méngoo ak sëñ Fallu nekkul ci kër gi sama yaay dem Louga jënd fa lalu diima ca diima yi njëkk dikk wéer ko ci buntu néegam dugalu ko ci néeg ñu wax ko sëñ daaw mu dikk àbb si suba te awuma bu méngoo ak moom dama nga dimbali abal mu ne ko bisimilah borom këram ne ko sa ko doog jënd mu ne ko dama koy joxe jërul wax mu yóbbu ko dem ñu sampal ko sëñ Fall bañ ko ko sampalee mu ne fa ñu di ko ganale ba mu am ba ñetti fan ba muy ñibbi ba génn sëñ Daawuda Mbay woo sama yaay te sama yaay am na borom këram fukki at ak juróom-ñett mosuñoo tiim dem ba muy dem sëñ Daawuda woo ko mu ñëw mu ne ko kii lal bii nga toogoon ci néeg bi awma ko moo ko jëndi woon dikk ma abbay ko sampal la ko ngir nga toog am na ci séen bi fukki ak juróom-ñett lu ma nga ñaan ko sëñ bi ne ko yomb na waa ji ñetti fan ñett rek. ñetti fan ñett ñetti fan ñett rek. ba mu jàllee sama yaay jëli weer mooy sàmbalaaw bi jóg cët ndar ba mu noppee mu tekki fa jóg ca kees ba mu noppee mu tekki ab sa fa la yem mooy sëñ fii nu tey fii nu toog fii nu toog. góor dem ba ant sëy fii ci ndindi sëñ baaram mu mag moom sëñ tubaab mooy sëriñ sëñ ma sàmbay xar benn bakkan. waaye sëñ Fall la nangoo dëkkal keroog ba mu faatoo ñu yóbbu ko defar ko ba àggale ay ndox di daal sëñ Fall yëkkati parasol di bi mu sampee parasol bi xetu laaj ko ngi xam mag ñi geesu mu samp ñu deltu gën a dugg sax sëñ bi kàbbal ba mu ko julee ba àggale ñi fa mën a teg leen sëñ bi ne leen dembaante mi tëdd mi tëdd sëñ baaraay sëriñam sëñ ma sàmbaay xaritu bëkkam waaye may dëkkal fii ñu koy dugal nag sëriñam di ca doon dara xaritam di ca dara man ñu mu dëkkaloolu la jabar maa ko kon problème yi li ñu dama leen di gannaaw waxtu bi day jógoon te ku ne day wax dafa am jikko yoo xam ne danaa ko leeral sëñ Fallu boppam jëmmam ni mu ko def noonu la defal waa këram tuug ni mu bëggee sëñ Tuubaa nangu ko ne liggéey la muy ab sëriñam doomi sëñ Fallu yëpp yëpp yu góor yi yër yu jigéen ni la ñu doone ay taalibe noonu lañ bëggee sëñ Fallu noonu lañ ko nangoo liggéeyale noonu lañ toppee ci gannaaw képp koo xam ne yaa ngi seen kanam nag Sëñ Abdou Karim xam nga nit it yàllaa koy jagleel loo xam ne kenn xamul makaarima lox laa ko ba ko yàlla sakkee yàgg na sàkk ku ci Sëñ Abdou Karim yi sott ko ci keneen waaye yàlla na muy def mi denc yëfam ba mu jot mu joxe ko loolu la yàlla def sëñ bi gën ci makkarama la dëgg la defewu ko ci gànnaar defewu ko Mali defewu ko meneen réew la ko defee dëgg la makkarama la la mm-hmm. fii mu ne foo mën a dëgg foo mën a jóge ci àdduna boo bi ndëb leen makkarama la la ñu tuddee bi ko dëgg loolu nag liggéeyum ñu njëkk ñi la mag ñi liggéey nañu koo fi gis danaa la wax tey loo xam ne sëriñ Fall mbirum mën su ko waxtaan fii bët dafay sébbi ci daara ak moor na wenn façon goo xam ne fii sëñ ñaan moo ko fiy dugal wenn rek ba tiit ñu tàmbali mu laaj kenn du ko laaj du ko mu tiit ñu dikk ko sëñ bi sëñ bi bu ko laal bu ko bu ko bu ko yar laal de demal laaj pour muy ko indee daaw sëñ baa ngi teew ne mu ne ko jàkk gu jàkk mu ne ko eh. nga li def waay gor su toll nii yow mel nii nga mel te sam naw la def la fekk la fa nga nekk ak lam la fa rek ba nga mel nii sëñ Tuubaa ñu di ko liggéeyal sa naw la yëpp nekk ñu naajo nga gànt seeta liggéey na ko ci yow ay lu nga ne waaju li liggéey sëñ Tuubaa bi nga di ko dem leen dëkk waaw bu ma gis ñu yar laal ko dem leen gars yi daal dem bañ demee teg machine bi mu mel ni doon ko ñu teg ci saaku teg ci saaku teg ci bopp di ko def ba def ko ñetti fan mu ji juróom-ñeent saak ñeenteel ba ñu ji ko mu làkk mu bañ ñu ne ko biñ dikkee indiwaat ko sëñ sëñ bi ne tey du ma ci boole wax tibbal suuf jox ma rek ñu tibb suuf jox ko mu ñaan a ñaan tafli na ko demal demal wol wol ko jox noppam day jox da ko liggéey li façon keroog bëgg sëñ Fallu maye doom bi yëpp dañoo màcc na du dem sëñ bi woote ne maa ko maye ñu ne ko xam nañ ne yaa ko ma may ko waaye du dem sëñ bi ne dina loolu kenn mën ko sëñ Fallu am na fi oto boo xam ne bii wutir bu na rafete kenn mosu koo gis suñ toll wàcce ko di ko doxe ngir léegi oto bi du taw ñaari kilomètre képp taxaw ndax taxaw sëñ bi sa ko ne bu njàgg sëñ bi su ne ko oto bi ko war a delloo seet bi moom ko nga ne lan mun a ko tax daan taxawee nii rek taxaw mu taxaw mu ne moom sëñ wàcc na ko ubbil ubbil mu ubbi bi ne ko eh dangay ngay seet fa tubal ne fa tubal ne ñu ñu ñu def léegi nii nga mel ma am ma ma ma am soxla fas wu ma war a liggéey li sëñ Tuubaa di fekk la ci sa nawle nga gënal ma ci ma ma ma jële fa ngir war liggéey sëñ Tuubaa nga tàng ba ministre laa jëfe ji waaye seet li nga def waa ji li tubal doo ko dégg mu daal di barke sëñ Tuubaa sëñ bi yoon na oto bi ba ni mu ko may sëñ Abdou moom maam na mi nekkoon daru man na la xëy soo woo ko mu dikk mu ne ko fas bi dama ko doon doxee léegi li ma ci doon dox mat na fab ko yóbbu mottalil ma ko waaye dootoo dégg aw tàngooram boo maa ngi ñaanal bépp mu yaakaar sëñ Tuubaa te bëgg lu baax màggal ko su rajo bii ku ci ñëw mën na maa wàcc sëñ Tuubaa yitte yoo mën a indi nu mën a deme sëñ Fall li may jeexale mooy Léopold Sédar Senghor dafa ñëw fii gane si sëñ Fall yenn fi ba ngoon sëñ bi di ko bijjant biñ demee bu jubóoto Senghor na sëriñ bi ngan gi neex na lool waaye man damaa juum sëñ bi na ko juum mu ne ko looloo juume mën ne ko damaa jóg yoon woo xam ne wii dama koo jóg ba noppi te munta pomp te waxuma loolu laa dugg te yoon wi am na yett yu ci bi ne ko yett yu mu mu di ko wax sëñ bi ne ko yett yi nga wax mën a mën a ma ciy teg la waxoon mu ne ko am na pat buy fële sëñ bi ne ko danaa di ji pakk bi maasala ko ba ba adduna tukki du la bés loo ñaari la woon mu ne ko kamb mu ne ko danaa ko maasale booy dox man ngaa gëm doo ci daan ba ba adduna tukki loo ko mu ne ko luy doge mu ne ko danaa ko randale sa bët ci tege li ko ñeenti loolu muy man moo di ab dox pour wutal ko bu yóbbal bu mu yóbbaale li yoon ngi sori sori doo xiif doo foo toll yaa ngi ci kër aji nguur si nangu la dox. mu ne ko dinaa dox mu ne ko nangu la dox. moo ko mu dem bay dugg mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko li gàtt mooy lii nga yor na ci sa xel dal doo watu wat la doo desu la rek demal. kon dem yéen ñi dem leen. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. jërëjëf euh, sunu euh, yi jëlale na li ci ne ci baatin. waaye ak set gi waaye wér gi ci ma fekke waaye teg nag tege gi ci nose gi nga xam ne lu ci nekk fàttewut na jataay bi mele bu daanee la rek dangay mel ne yaa ngi jàkkaarloo ak jataay bi yal nu yàlla fayal sëriñ Falilu waaye mag ñi yàlla nañ fi yàgg ndax ñooy référence ci ñooy delluwaay xam nga lii doo ko jàng ci benn téere te lu ko gën a wér newut ci téere waaw lu mel ne machine nga xam ne sëñ Fallou wane wut kii man ci machine bi waaye fi pas-pasam toll ci sëñ Touba lay wax machine bi maa dem ba tugal fekk la fa ci naw nawle ma jënd la tànn la ngir war la di la liggéey la sëñ Touba nga ñëw di tàng sa tàngaay wi lu ko jar ku tàng kenn du ko jariñoo waaye gis nga ba mu ca noppee ndax oto bi du tàng dañu wax ne sawara du lakke ndox du sedd yàlla ca ne bu ci yàlla gënoon rek du tàng bay lakke ku le weddi nga laaj sa waraw Ibrahima ba mu ne bërëx di tàng sun borom def ko ne yow tàkkal ce tàngaay yow nga ñëw waaye moo tax yal nañu yàlla fayal mag ñi waaye yàlla fayal sëñ Fallou kon sëñ Gana dégg nga fi Baye ga Baye Gora daaneele sëñ euh, sëñ Fallou ak bëggam sëñ Touba mandargaal na ko ci jëf waaye mandargaal na ko ci ay bëyit nit ñiit ñi nga xam ne yàlla xeer jox na leen xam-xam jox leen leer ñoom it mandargal nañ sëñ Fallou ak bëggam sëñ Touba kenn ku nekk bind nga ci day mel ni nag nit ki li nga koy waxal sëñ Fallou nee na woon fu maane teewee moo ne dut fa amu yoon lii bàyyi góor a wax jëf la waaye sëñ Fallou ci boppam it waxal na boppam sëñ Gana Thank you. tey yéen ci loolu it fexe ba ndox mi ci baawaan ci wàllu ci taxawaay bi nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal am na ko. Oh, mu ngi wax ci bogo la waxoon dafa waxoon ne eh, bogo bi boo fa demee dafay mel ni Touba ak janna ji ubbeeku ay buntam ñeel ñu koy tabb waaye nag ca dëkkaale kan di jawaare xubbil asri xalifa xayri xalifa fil ardi nga xam ne ci gën ci ci wuutu mooy Cheikh Mamadou Fadal ci kaw suuf nga xam ne xëyru xalifa nga xam ne kon dafa remplir lu war ci moom ci aw melo diggante nag boroomam diggante nag sëriñ bi ci taxawaay bi war bépp mu ne booy ko ci gën ci jamono léegi moo fa nekk ne eh, max maxabati muxtaar si bi Thank you. منها يرفع به الفقر رفع تجارته يمكن القرآن به والفقر من الفقر يمكن بالإضافة من مثل يأخذ كان الإضافة للأكل والكسب وقد من من المنبدئ قد نرى المضيفا سيرا للمسألة يعني من يمكن أن تكون من كورة بيقول بيقول ndax ci gerte la feeñaa bi yor rek di gën ba mu yor. xam ne yóbbu nañ xadim bi di yóbbu xadim faa ba ñu naan معنى لفضلك لا عند ولا لك حفظت دينك في علم وفي أدب وفي سواء منك حياتك لقد تمسكت من شمس ومن قمر فكنت بحر من الأموال والذهب الله يتجد العظيم في جهد البيت الطيب صادم من قبل السمين كل مكان السمين ما هو بشمس القمر مكتوب من جهد الجدة من الطيار ومن من بطة الحمام وجل في الجنة كذلك جرجت في الجنة yëpp am na waaw wax la jotaay bi li ngay dóor bi wax bari na am na borom xam-xam yi ñu wax ko ci ay suñ fànn faw nit ñi yëpp seen kàddu bi ci nag suñ fànn gaay mooy dafa am dafa wax seen bi daanaka wax na yeneen bi lu mu doon mais ma wax na lu ma doon yow it nga def na lu ma doon ci lu ci waaye it am na yeneen bi yow yel mais it ma wax ko yow ko yow

dégg naa moom moom waaye loolu yëpp dafa am dama wax toujours ne comme ça dañu koy doon ko def ndax marché bi ci nekk boo ci ko mën a am ci xaaraayu marché bi suñ xam ñu ngi koy sëñ bi daal mooy xeer moo tax xaw mu am bëri mooy lan la koy sëñ bi daal mooy mbiral la ko sëñ bi daal bi dara tam bi naan mu boole yaar yooyu nga xam ne sëñ bi daal moo doole ci sëñ bi te ñaanu sëñ bi mu boole yaar yu xeer yooyu nag ku jaay ñoo xam ne waaye ku jaay xeer xam ne nga boole ñoo xeer xaw nga ko sëñ Fall daa doon waar yëpp jaay ci biir dañu ko jëlee sëñ Fall jàpp bénéfice bi très ndax dañ la ko def bu boobaa bénéfice boobu nag dañ la wàcc nag foog ko joxe addiya kon li ñu joxe addiya loolu lépp ko joxe ndoom bi addiya jëlewul njaabaat bi addiya daf ko jaay jënd ko ak taal bi ba lépp taal bi dafa ñëw ak taal la joxe addiya ñu jox ko addiya kon loolu loolu te ñu ngi lay jaay ci baax dafa fàttali ko jox sëñ Fall yi joxe maanaam beneen beneen teel rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa molana muhammadin wa ala wa ashaabihi tayibina taahirin ginnaaw bu ñu nuyoo ñaanal cheikh mohamadin al muntaqa alxalifatul am mu yàgg fi loolu te gën wér ñaanal ko njabootu sëriñ gépp ñaanal sëriñ awul Baraka mi nga xam ne mooy buntu sëriñ Fallu mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootuk sëriñ Fallu gépp ñu ngi ñaanal it Cheikh Abdul Karim ibnu Cheikh Mohamadul Fadil mu yàgg fi loolu te gën a wér euh, sëriñ Fallu ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Baye Gora Seye di nuyu sëñ gànn Messere Muxtaar xam naa nag la nga xam ne moo daloon Cheikh Abou Balla Gueye ci kanam Alaaji Baara dafa am genn màggal goo xam ne daal damaa xamul fu mu xeweeti woon Alaaji Baara teewoon ci jox ko kàddu mu waxtaan ba noppi ñun nañ jox Cheikh Abou Balla Gueye Cheikh Abou Balla Gueye jël micro bi daal di maasa aqulu ba'dal amiin yi ginnaaw bu amiin waxee ba noppi man tuma lu ma ciy teg euh, alaaji baar moomu la sëñ Abdou Karim mi waxoon bam mu doonee xalifa mu ne ko li tax sëñ Fall tuddee la Amine maa ngi koy doo a xam Amine ñi lay woowee ndekke bu doomi suñ Tuubaa yi noppee ndeke yaa war a fab te kuñ wóolu rek la war a jël teg ko ci loxoom eh, muy kàddu gu dëggu man damay wax tuuti rek ci turam bi ak lu ma ci sama sëriñ waxoon sëriñ Saaliwu xam nga alxuraan dana xul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi saalika fal yafrahu huwa xayrun mimmaa yajmaun kon fadlullahi du lu ndaw ginnaaw suñu borom nee na ngëneelul sama ngëneel ak sama yërmande lu ngeen mën a dajale ci àdduna ak àllaaxira moo ko gën ci àdduna ba àdduna daj wenn tur la fi mu sëriñ Fallu ginnaaw bi ñu feeñ ñëpp moom lañ ko tuddee ñu bootu ci ginnaawam ñu leen di woowee galas galas ji am secret mënuma woon a xam lu mu doon waaye man nag sëriñ Saaliwu ma ko feeñalal ndax euh, janatul maxwa la ma toog ci wetam xam nga sëriñ bi ku ko xam xam ne moom janeer bëggu ko fu mu toog dañuy fay làmp yi euh, mu mu tëdd ci njowaan yooyu ñu ko daan defal di ko ràbbu mu daal na gees yem ci man daal ne ana kii may bëgg a tontu Abdoulaat jaxate na ko fàllu jatara la mu daal ne ma tur woowu kañ ko tuddee woon doy du ci sëkk yow nañ lay wooyee galas sëriñ Saliou ma ko wax de daal ne ma tur woowu de kañ ko tuddee woon doy di ci sëkk ma ne ko moonte man de samay mbokk sax ñëpp galas lañ may wax mu ne ma doy du ci sëkk de daal ma tur woowu ko tuddee woon doy du ci sëkk ndeke kon fàllu ji xusuusiyatu la ci sëñ fàllu li tax sëñ fàllu lijjanti ba ne ana jalas fii Touba jalas jooju mu doon mujj doon galas ci nga xam ne Sëriñ Fallu kenn xamuloon doon ndeke bëgg naa soppi tur ci mbooloo mi ñu ko tuddee jël galas ji taftal leen seet leen doomam yi sëñ Mourou Bousso Dieng Alaaji Baara ñoom ñëpp ba ci njabootam gi doom juñ am galas lañ koy wooyee Sëriñ Fallu Mbàkke nag mënatuma cee wax lu gën a kawe lu bàyyi góor a wax ak li si liñ gànne mesar a wax ndax bàyyi góor a moom naq naqaluwut tuxalut daa fekkee Euh, sëñ Gana dafa toxal waaye li mu tuxal wér na ndax jëlee na ko fi wér waaye daal li am solo ba am solo mooy sëñ Fàllu amoon na ci sëriñ tubaa dégg goo xam ne musuma gis ko jamonoon te kenn am ci dégg gu toll noonu dégg googu sax taxoon na saxaaba yi ci Rasulullah sallallahu alayhi moom nag sëriñ tubaa dafa ñëw mu dégg ko déggin woo xam ne doy doy na waar ndax euh, bayit woowu ngeen indi na sëñ Musaa Kaa wax mooy doomi samsin wax xamar ba ba teg ca lam ca teg ba àgg ci ne moo nàmp yaari meeni gor loolu dafa may sëñ Fallu xam ne doy na waar ndax sëñ Fallu sëriñ Tuubaa mooy sama waajur dara gënu koo neex nga am loola man koo bàyyi xëy jaay sa njureel jëndee ko taalibe ci junj boo xam ne sëriñ Tuubaa junj na la ko rek te junjandoo la ko ak mbooloo yow nga jóg am ci dégg toll na jël saw kayit bind ca la nga ci bind Euh, bayit nag duma ci jaaraat ndax ñëpp xam nañ ko daanaka ba mu noppee ba jaay kun juréel gi jëndee ko taali bi ba jël la cay ak njëg jox sëriñ bi dana ko fal taqbaluha sëñ Fallou foofu la yeewoo ndax sëñ mën naa nangu mën naa bañ a nangu mu ne ko waaye nag ma ko nangul nag yaa malaasu ndax dama xam ne yaay wéeru waaye moo wéeru ni ñëpp boo ma koy nangul nang ma ko nangoo karaman te bañ maa jéppi ci sag mbaax ndax yow da tiim ñëpp di rafetlate kenn yow faale woo kenn laa siltumoo baynal baraaya alama yow fi ne amoo looy wuti ci kenn ñëpp lay wuti sëriñ bi ne ko amal jawaabu fa fil masalatayni sëriñ bi da ko ton de daal na ko falaa taalamu nafsun maa ox fii lahu min xurati ayunin lii nga def tey lu ma ko gënal amut sedd sedd xol gi nga xam ne am naa ko sama digg ak yow ëllëg rek lay leer një njëg moom mooy loolu yi mu ko wax li ne ci man danaa ko def ci yow bu ci xajutit ma xaj xajal ko ci ñaareel ba sëriñ bi ne ko lii nga def muy njëg gii nga ma jox te moom sag njëg jox ma ko yasurrukum da nga ci bég da nga ci bégle wa yanfaukum dana la jariñ danga ci jariñ wala yadurrukum doo ci loru te doo ci lor keneen kon euh, sëriñ Saliou it mas naa wax ni dafa laajte ne doomi sëñ Fàllu yi nañ ma laajal nuñ demee loolu xam naa nu mu demee xam naa it kër kañ dem eh, bokk bokk na ci ñi gën a doon ndaw ci saayir bañ accès dañ ne ko ah, kooku day tabaxam ba tubaarkal sëñ bi ne loolu de laa foogoon ndax sëriñ Fàllu da fee bàyyi woon ne ci ñun ñun ñi bokkal sëñ Tuubaa lu mu am jox ñu lu mu am bokk ñun bàyyi doomam suñ ko masaana wax mu ne cerey bàyyi jàmbur du ma ko xonte sama doom suñ fàllu noonu la def ay doomam gis nga doomam bi tey foo ci dem ñenni la gis ngeen fii fii sëñ Abdou Karim ci suba maay waxtaan ba wax kiñ ko dippee muy sëñ Abdou Karim mu mag ma mooy taw sëñ Fallu sëñ Abdou Karim daal di ton ah, waxtaan ci moom jot na nag daal di jëlal boppam kàddu gi daal ne Euh, sëriñ fàllu bu masaan bu nit masaan jóge sëriñ fallu ba génn gis ko niroo gi ëpp na da day wax ne waaw man ndax damaa jommi sëriñ fallu ci néeg bi ci biti nga xam ne kon loolu niroo gu doy la waaw léegi nag ñu ne sëriñ fàllu daa mosu mujj ne ko ah maa ngi yow suñ mbir dina doy waar lool ndax li may liggéeyal sëriñ Tuubaa kenn nu mënu ma cee wuutu la daloon sëriñ Ahmadou Yadaali ca Mbàkke ñu wax ni Euh, soxna Fadja da daan gis bu sëriñ bi defee dara mel na si amul dal da ciy dolli dara soxna Fadja naa ndax dana sotti kii kat du àndandoo kenn te mel na ni amul dal bi nga ànd ak moom. juróom-ñeenti at la am sëriñ bi woolu borom saam ba mu ko woo ko wooloo ne ne ne ma indil ahmadu waaye jërut muy ñëw jolof gi lañ ko fekk mu ñëw sëñ bi téye ko ay fan bind ab leetar daal di jël bu boole ca borom saam teqar ci leetar bi. na mu ne woon mu ne waaye ndaw li nag lettre bu ko xool këmb bu ko xool mu agsi si borom saam texar ci ko gis Serigne Touba bind ci ne ko ahmadu bi sama borom moo koy laaj euh, këmb bii ci la càngaayam ne waaye nag moo ko beral boo ko seetloo ñi jiitu ñëpp suñu ahmadu dal dong lañ ci lañ ci ber. tey bi ma waxee loolu. loolu xaw na koo yëngal. ba mu fàttali ci turandoo mi lu doy waar. daal na ñu bari sax dañoo jàpp ni. Euh, dafa kii rek ñu tuddee ma ko déedéet daal na am na diir nag ñu doon ma ko tuddee daal na nag am na pàkk yu ma am ci yoonu Touba Bogo ba ma ko amee ba noppi ci laa doog a xam ne ay toolam la te daal na ba ma ciy dugg xawuma ne moo ko moom daal ne fii ngi ma dëkkee nii tey ci ay toolam la bokkoon nett na nettali na ci nettali yoo xam ne li mu yeesa tax mënu gu ma ko jàpp waaye nee na fii ci ay toolam la bokkoon lu ci nekk rek nee na bi muy am ndax nee na sëñ Fall def gi ko def looloo mujj waaye mas mas naa doon tool yi si Abdul Karim mi ko tuddee nee na daal loolu mu ne mayit am naa tawféex loolee nekkoon ci ma moom di ci man loolu sama tawféex la loolu wax na ko tey de te ci micro la ko waxee kon moom li ma xam ci moom bari na bëreegut waaye wax naa fii keroog ci kanamam bàyyi góor a toog ma ne ko daal li may tënk mooy jaxasoog doomi Sëñ Tuubaa ku ko def téewul mën a jaxasoog yow daana jafe lool ci ku jaxasoog doomi Sëñ Tuubaa mën a jaxasoog keneen loolu wax la joo xam ne dama bëgg ñëpp lañ bët li tax ma wax ko euh, lu mu bon bon am na ku ma jaxasoo am na lu ma xam ci moom tuut jaxasoog moom mii amul lenn lu ma dérange ci moom ndax li muy def lépp ci yoon la ko teg mooy ci bëgg sëriñ Fallu te fas yéene ko liggéeyal te loolu yi ay ay magam a ko seere te li nga xam ne yàlla dogal na sunum xame ca daari Serigne Saliou la loolu danaa leen ci wax tuuti xëy na waxtu wi du ko maye waaye maa ngi leen di yëgal ni ba mu ñëwee gis ma maag Tafa Sarr daanaka ñuy ay gone xam nga lu ñu njëkk a wax xam-xam du ay caaxaan xam-xamu yàlla def nañ duma leen xeeb ñun taxuñu de waaye ko ñu fi teg dana ki leen fi teg xam naa du fi teg ku ko matiwul dégg nga dégg nga jooju wax jooju wax du ma ko fàtte mukk ndax loolu dafa dafa teg Serigne Saliou ci kaw daf ko tagg ndax am na ñoo xam ne gët ñëw nañ fa waaye daanañ doxee ni ñii ay gone lañ ndax am na ñoo xam ne daan ñëw di wax ne sas wii gone yi ñoo ñu ko sas waaye sëñ bi sasuñu ko kon ñoom wuute ak ñoom kàddu de te ba toolee desee it bañ ne ko barab sàngam la des dana du fa jóge mukk te àggul te ñun ñoo ko wax xame bi loolu la ba yàlla dogal lii sama diggante moom tey waaye maa ngi leen di yëgal nii këram gi am nañu fi xëy si ñoo xam ne dañoo mel ni ñuy dem marché yor seeni i bitig saa yuñ ñu xëyee fii lañuy ñuy si mu teg leen ci mbaar mu sedd guy bu añ jotee mu jox leen ñu añ jox leen boisson jox leen ni doom su duggee ba ci biir daal ne sama waa kër yi ñaata lañu li ci gën néew ñaar fukk ak juróom lay doon li ci gën a néew laa wax de démb ñaar fukk ak juróom-ñett li ci ëpp ñeen fukk jëm kaw la kenn ku ne mu yëkkati la muy yëkkati jox Lamine Mbodj mu yót leen am na si Lamine Mbodj daa ñëw ne ko sa waa kër yi mu ne ko Lamine Mbodj ñoo ñoo ma gën a ñor ñun jërëtu nga ma koy ma koy nga koy wax saa yu ma duggee rek xam naa ne ci ñoom laa war a jëm soo gisee mën a tekk rek daa am lijjanti bu mooy lijjanti waaye su ma noppee ñoom ñoom laa jëm saa yu leen rombee nag dugg ci kër gi ñaan ne lañ koy ñaanal ñaareel ba kenn ku doon gan te xam gër kër gi lum néew néew bu ñu laa demal barab sàngam ba boo nga xam ne lépp fa lay fekk musum maa gis ku dugg fii ci gan ñu fàtte la loolu daanay am de te bu amee dañuy xam ne jaadu na nit nit nit a tax waaye ñi nga xam ne ñoom la ko séqal muy waa këram ñi fi nekk fi mu ne nii mooy soxna maam ami ak soxna fat bintu mii ka ca des ma nga amee Amérique waaye léeg mu ñëw wenn tëralin wi la su demee ba dugg ci biir mooy jël téléphone ne ko saal sàngam moom sëñ bi la de day woo daam ne ko daam saal sangam ñaata fa ne te téléphone bi lay téye de daam ne ko nangam mu ne mu ne soxna soxna su fekkee soxna si moo aye wala soxna si soxna maam ami wala soxna Fatou ku ci aye rek mu ne ko saal sàngam day nangama fa ne ñoom it ñoom ñu mën a jàpp lañ waaw lim leen xirtal moom nangu nañ ci xirtalu ñoom loolu nag lu ma xam la bu noppee fur wi ci kanamam lañ koy defee. gis nga bàyyi góor mii ñu dendal nii dafa woote ni nay njëkk añ nay njëkk reer woo ay woo ay soxnaam ñu toog woo dongo yi ñu toog ñu koy toppatoo nay njëkk añ nay njëkk reer loolu xamul lu ci mag mu toll nii di la yendul di la guddi la ko bëccëgal boo ko doon jox ay milliards te cof ko ci loolu cof nga ko ci lépp seet bu këriñ ku doy la su ko defee soxna yi ni ñuy jàppee mbir mi lu ma jaaxal la bu ko defee danañ tibb bool yi tol noonu indi ko ba ci biir néegam bu defee dañ tibb yóbbu de dañuy indi ko ba ci teg ko fekk fur fruit bi bay njëkk a dem moom mooy toog ñuy def fruit bi fi ne bu fekkente ne gis nga gis nga fruit bi ñëw fii ak boisson bi fi ne am na ku fi dugg ba xool leen te yëgu ne xool na leen ba xam ñaata fi ne bu ñu àggee dañuy ëppal lépp du ko xool ngir bëgg ko caa yemale waaye day bëgg mu ëpp gis gis ngeen li ma leen wax fi ne am na ku fi dugg ba xool ñaataa fi ne te yéen fi xamu leen ko nit ki mën naa dugg day kanaayal nag bu fekkee miinoo kër gi doo ko xam am na ko yor ataaya ku naan Pape Ndiaye ataaya loolu gan kër gi am téeméeri junniy gan ak fukki gën a ci yem loo lam nekkoon du ci jóg li ma la gën a li ma lay wax daal te di la ko wax mooy jëgg kafe li ma lay wax daal mooy lu mu lu mu néew niiw néew néew bu fekkee kenn nekkul ci kër gi ñeenti xar yi mu du manqué kenn ni ko lu mu gën a néew fukk fukki xar juróom koo xam ne da koo xam ne daayira di ñëw di la siyaar si bala ñëw ñëw nga jëndu nag te buñ xoolee enveloppe bi nag wa ëpp ko doole fuuf loolu moom lu ma seere la te wax naa ci bëccëg bi may waxtaan rek ni wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu azimun xalbu sëñ Fallou xoolal séquence bii mu def ci magam ji digle ñëpp ñu siyaare ko loolu xam nga lu doy waar la lu mat a waxtaane la dige ca te lim ci dige rëppay am daal ne man de bu ma toogee fii xam naa fa muy féete ci kër ga dinaa tàllal sama loxo xam naa dem gi dana jafe ci man xoolal loolu ndax nit bu fekkee yàlla dogal na ñëpp di la déglu te loo wax ñu gëm ko yellantikoon nga yox luy jëriñ nit ñi tey ji ëllëg moom li sëñ Blaat na woon wa maa arsalnaa min rasuulin illaa bi lisaani xawmihi bu leen defee ne ab yonent rek a tax yàlla di nabiyul mursal ci yonent bi lay mun daal nag képp koo xam da nga naan dama ne ñu ne ah mursal nga ci ni ngay wax moom nag bi mu doonee mursal yàlla dëgg dogal ñëpp di ko déglu xel mi da ko dafa sell te sell gi xel mi sell foofee la koy jëmee ne lim ci jot a yor day bu fekkoon da ko jëmee feneen kon balañ ko tur turu àddina tukki ndax nit ñi déggal nañ ko. jërë ngeen jëf yàlla na fi yàgg lool te wér magam yi ànd fi yàgg ànd ak moom yàgg fi loolu te wér taalib yi moom ci liggéey bi jërë ngeen jëf. Euh, sëñ Fallou Diatta xam naa foofu la ñuy tëjee jataay bi sax ci Baye Gora indi euh, na kàddu yi nga xam ne seere na ko ci sëriñ Abdul Karim euh, daf ma def loo xam ne moom ma fàttali lii ca def ma marqué nit boppam daf ko jege am na ko doon wax ko ma mas di wax na ma man de bàmba ji li may rëy rëy bu ma ci yëgutoon sama bopp sama yoon du ci ne sama bopp rek ma ci bàyyi waaye koo gisit daraa koy bàyyi fi barab euh, sëñ Abdou sama wayjur dafa génn àdduna sëñ Gànna te àdduna sama wayjur ma ci gën a ñor mu jekk-jekk rek woo ma téléphone na ma sa kër laa jëm si ma ñëw mu ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp bi ñëwee toog sëñ Fallou Jatare mii ñëw sëriñ bi ne ko damaa bëgg li may bëgg wax ngeen déglu ko naa mu ne ma influencé wuñ ma ci demal demal jaale ji Fallou galas te normalement war naa mën a ne bu bu nekkoon nit jaadu na ndax nit laa te damay fàtte kenn waroon na maa mën a fàttali na ma njaalum fàllu Galass ma waaye fàttaliwuñ ma ko influencé wuñ ma ci pour na ma Fallou galas sa nit war nga caa dem ñëwuma ci pour hasard man maa ko xalaatal sama bopp ñii ñii di ñëw it kenn ko xamoon fi ma jëm si amul waaye maa xalaat na yéen da ngeen di liggéeyal sëñ te waar wi ngeen di nekk di liggéeyal sëñ ñun ñoo leen war a fekk si ci waar wi ndax bu doon football kat wala musicien wala caaxaankat ya buñ ca xewlee ña caaxaan ñor ñëpp dañ leen di fekki kon nag yéen ñi ne ci waaru sëñ Touba bu ngeen xewlee ñun ngeen war a gis loolu moom moom la ma sama xalaat may moo tax ma jóg seet si la ma xam ne kii la sëñ Abdoulaye waxoon na kuy liggéeyal sëñ Touba taalibe yee la war a fay moom bàyyi na xel ñuy liggéeyal sëñ Touba loolu it laa gëmee ci moom ci ku mel ne Baye Gora Seye ku sëñ Fallou tarbiya mu wóor la ne le ah faatoo la teetaa bi àjjana loolu du lu ñu laan naatable sa adduna it dootoo ci ñaan kenn dara njël suñ borom fàggul na la ko koo ne fa moom mel na kuy tërbiyewaat sëñ Fallou rek da ngaa gis di koy sëñ Fallou ci moom waaye bu du toon loolu du la fa gis loolu loolu danga koy jàngati ci mat ñu mel nii xam nga ki gën a naqaree téye mooy dongab tërbiye bu am ngërëm daanaka gisatut kenn lu ko bàyyi fi barab rek dara la beneen bi nit ñi e, dofuñu bukki dégg naa dafa séen jant bi muy xonq mu ne gaañi ak ndawal la nee bukki yëpp fexandoo ba mu yàgg mu seen lu duti bukki tëf ca mu naa ah, ñëpp nag dofunu naa daw ñëpp dofunu waaw waaye moom ñëw ci sëriñ Abdul Karim te ab jaayil néwu ci ay nit piir yu mën a yor réew mi yu mën a yor Afrique ñoo fi ñëw ñuy ñaanlu si bi ma gën a marqué mooy barki dem bi may bi may bi may bi may may sant sëñ Tuubaa booba tayatuma ko mooy bi may jël kàddu benn tubaab tubaab bu française bu weex tàll ànd ak rakkam du julit dafa ñëw ci rang gi wax sëriñ Abdul Karim na ko sëñ Mbàkke Ñaŋ moo ko doon jottali mu ne sëñ Abdul Karim dama am sama doom joo xam ne ma nga France euh, yaakaar naa fu mu waxane fa la jógeeti sax ci biir Paris jàppoon naa ko dëkk ba jàppoon naa ko ndax dafa ma ñor mu ne ko dafay feebar te hôpital yëpp yóbbu nañ ko fa mais duñ gis li ko dal ma ñëw nag ngir sàkku ci yow nga ñaanal ma mu wér ma xam ne tubaab bu bu weex tàll jóge Paris ndeyam ak baayam day français te bi ñoo ñoo fi jële woon sëñ Touba na ko lii nga fi woote du sotti nañ la fi jële ku bokk ci ñooñu ñëw ne lim doon woote mooy dëgg ndax moo mën a saafara sama sama doom yi ma xam ne loolu mooy sëñ Touba sëñ Abdou yamut ci ñaanal ko daf ko ñaanal ba pare ne nañ na ko nañ la yóbbu ci biir dalal la boo xewlee ba noppi nga dellu te booy dellu nga bàyyi fi sa numéro téléphone te yóbbaale numéro téléphone soo demee na naan lii ñeenti fan bu saafara woo nga wax ma bu saafarawoo nga woote waat ñu xam fi koy teg kon loolu mooy sëñ Touba moo taxoon sëñ Touba ne defar leen seen bopp ba ku leen gis bëgg leen ngeen defar seen i jikko ba ku leen ñam du leen mën a bàyyi loolu nag day mel ne mooy tedd ngay jikko jii nga xam ne moom la tudde muy makaarimul axlaax beneen bi ci topp mooy ma jàngat ko ci sama bokki dongo yi fi ne wax na ko mën na maa yem ci sama bokki dongo yi man ñooñu dañ dañ ñoo dañ man dañ ma neex ni ñu mel ci biir kër gi teraanga yi yëpp ñoo koy toppatoo waaye bu noppee dellu seen daara doo dox boo leen fekkee ci màggal goo xam ne sëñ Abdou Karim da leen faa yebal ci ngay xamee ne kii tedd ngay ko def na ko ci ñoom mooy kenn du leen jéppi ca lañ war a nekk lañ ne waaye mbuus du wadd te foruñu ko def ci ab saako su ñuy wax ak yow maanaam xel mu sell mi ñuy waxee ak yow ak yar biñ lay jox ci ngay xamee ni ñii dañ leen a defar te nag sëriñu tarbiya lool lañ koy doyee kon lii nga wax ci sëñ Abdou Karim mën naa ci seede foofu nag dañuy bàyyee ak bàyyi góor mu tëjal ñu jataay bi ginnaaw bu ñu ko santee bu baax a baax ndax lii mu ñu may ci temps jafe na te ab barkeelu la ndax wóor na mën ne ñiy seetaan jataay yi daan ci jariñu ñu koy déglu daan ci jariñu waaye ñun ñi fi teewit ñaan gi mu ñaanal ak ci baatub sëñ Fall boobu nañu dox leen jaroon na ñu fay lu dul jeex cam wax ñu ko kon góor a ñu ngi sant bu baax te di la gërëm nga ñaanal ñu sun caméraman yi nga xam ne ñoom la ñu ñëpp ak mbooleem kuy seetaan jataay bi te fas ku yéene déglu ñoom ñëpp nga booy leen defalu ñaan ñu jox la nga tëj jataay bi bismillahi rahmaani rahim inna anzalnaahu fi laylatul qadr maa laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi shahrin tanazzalul malaa'ikatu war-ruuhu fiihaa bi'izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya waftah lanaa kulla baabin kunta faatihahu lis-saa'iliina minal xayraati ya Allah asbil sutuuri aslil humuuri kaasif xuyuuri bilaa kidaay xalallahu ajaati wa ajaati kulli muslimin bi jaayi Cheikh Mamadou Fadal barke lañ falil taawilana umrana sahilana badana wa hablana rasda wa tawfiqa yàlla yaa malikal mulk yaa man jàll an xawadin irham jami alwara yaa haadin rida yàlla mi dimbale yàlla nu dimbale yàlla mi taxaw yàlla nu taxaw yàlla mi musal yàlla nu musal yàlla mi wërsëgal yàlla nu wërsëgal sunu teel bi ak seen goog it yàlla na ko yàlla denc fi yàq àggu ci barke Seex al Xadiim sëriñ Fallu sama sëriñ li ciy des képp koo xam ne kii màggal gii nu jëm muy Kazu Rajab di bésub sëriñ Fallu sa xel nekk na ci ñëw Tuubaa wala nga ñëw Ndindi wala foo ko mën a màggale na la wóor ne na la wóor ne sëñ Fallu teew na fa nangu sa màggal kon nag yéen a ngi sëñ Touba ngi nii faju aajo ngi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ci barke Seex al nun ñii yal na yàlla ak sëriñ Touba doole faj suñu aajo ci baaxu Seex Ahmadu Bamba barke Alaaji Falil Mbakke allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa barke sëñ Fall mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci